Sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul au Gabon Tawfekh Production di établissement Mbaye et Frères Techno Habitat ak Digital Store ngir gunge leen ci bisu tedd yooyee. Vous êtes établi au Sénégal ou à l'étranger et vous voulez une gérance efficace et transparente de vos biens immobiliers villas appartements maisons bureaux, commerce immeubles. Et vous voulez faire louer à des conditions de transparence, d'hygiène et de sécurité. N'attendez plus. Contactez vite l'agence Techno votre agence de gérance immobilière qui vous propose des services de gestion locative rapide, rigoureuse et transparente. L'agence Techno Habitat vous assure en même temps une totale sérénité, où que vous soyez. L'agence Techno Habitat se trouve à la cité Mermoz, face ancienne piste, villa numéro 89. Contact 77 394 73 73. Agence Techno Habitat, la clé du bien-être. di sant Serigne Touba Khadim njaboot Serigne Fall gépp ci turu mbokki taalibe yi yëpp kàddu yi nag kàddu yi cant rek lay doon ndax cant gi nag ki ci jiitu mooy sëriñ mu taxa di ñaan yàlla suñ boroom yàggal ko fi lool te mu ànd ko wér di ko cant gu ànd ko ñaan ndaxte liggéey bi ab liggéeyam la ndigalam rek moo ci bàyyi ñëpp képp ku ci nekk rek ndigal moo la ci bàyyi tey jii bu ne woon ne fi yam yam fi waaye nag ndokk bi ñu yàlla joxee ku mel na moom nga xam ne sagu àdduna la jële naa sagu sax mu waaye sagu àdduna bépp la ci mbaaxam ci yaatoom ci bëggam Sëriñ Tuubaa waaye ci ku taxawu sëriñ bi ci lim bëggoon ci dëkkam bi muy jàng ak jàngale ak yaatal ab liggéeyam ku mel noonu amee leen ko njukkal amee leen ko cant aku ngërëm war koo ñaanal mu yàgg te wér liggéey bi bu ñu xoolee ci moom bi tàmbalee karwaan beeg léegi yàlla dafa dogal ci ab toogaayam mooy ki njëkk a yónnee fii ab délégation yónni doomam ju baax ji toog di sëriñ maam Thierno Mbacke di ko ñaanal suñ borom defal ko jàmm ak tawféex muy nit ku baax nit ku dal nit ku woyof nit ku nite te bëgg lu baax man de bi ma koy wax daaw 2019 ci jàkkañ ca batu yàlla laa ko gis foofa nekkoo de dama laa am ci ak fonkeel ngir li ma dégg ci yow ci wàllu diine ndax nit bu xasee bëgg diine rek nit ku baax a ngoog loolu lañ xam ci moom ci yaatalam te fu mu fekk lu mu war a dindi lu bokkul ci mbir mi duma damay gis ne du ci am sentiment loolu euh, modèle la waaye royukaay la waaye ab sag la ci ku mel noonu ndax sëñ bi su fi bàyyee diine bàyyi fi njaboot ñu koy sàmm sàmm goo xam ne duñ ci bàyyi dara léeg sama na ko yow yow moom yaay waxtu fonk waxtu lool ba gis ngeen li mu ko jaral ci heure bi daf koy fuglu bu baax a baax a baax ngir rek sàmmonteeg waxtu woo ma noonu ku mel noonu nag bu ko sëñ bi yónnee fii ak cant lay doon ci ñun moom la njëkk a yónni fii 2019 ñu ànd ko moom ren jii sëriñ bi yónniwaat ko mu ñëwaat ànd ak ñun liggéey bi ci ay taxawaay yu metti ci ak jàppandeem ci lépp loolu nag buñ ko amee dañ ko war a sant yàlla sant Serigne Touba waaye sant Serigne Mountakha mi nga xam ne moom mooy waajuram te ma ko yebal ci loolu liggéey bi Serigne Mountakha mooy ki nga xam ne carte membre wi njëkk barkeeloo ci liggéey bi jëmmam ju bind dox boppam ñaan ci ay yoon dem nañ poroxaan fekk ko fa dem mbul fekk ko fa dem Tuubaa fekk fa sëñ Seex Mbeng mii ak ñenn ci njaboot gi ñoom sëñ kalaam ak ñoom sëñ Bàdd ñu bari fekk nañ loolu ñu ànd dem ci moom ay yoon yoon loolu nag kon ba ca loxoom tàbbee ba léegi ak yokkute ak tawféex ak njariñ aku jëm kanam rek mu am ci liggéey kon loolu sëñ bi ñoo ngi koy sant di ko jaar ci sa ci sa loxo nga sant maanaam nga maanaam daal bég nañ daal cant gi moom nuñ koo sax euh, wax ndax lott nañ ci sëñ bi yëmul ci loolu waaye lu ci baree baree baree bari lépp lu jëm ci rek ci mbirum sëñ Tuubaa dañuy gis ne ni ci amee mbégte bi nga xamee ne euh, ambassadeur bu Gabon bi recevoir na mbooloom caravane bi sëñ Fallou bu semi tàmba moo jiite woon délégation bi ak ñoom sëñ Kalaam ak maam Assane njaboot gi ñu bari ña nga ca woon ci professeur Gaye doon dox loolu ba yàlla def loolu mu sotti moom it ñu ko sant bu baax a baax gis nañ ko mu ànd ak ak professeur Alugo jóge senegaal ñëw teewal ko waaye teewal seen bopp bi ñu demee ba dox loolu waxuñ fa nag benn wax bu dul intérêt yi barab bi rek ak lu jëm liggéey bi kanam loolu kàddu ya weesuwul loolu mooy liggéey bi lu gën a jëme kanam biñ toogee ba waxtaan ak moom ba àggal mu am ca cabarte lool daan ne sëriñ tubaa moom dafa war am fii jumaa moom loolu la wax moom loolu mooy gis-gisam loolu nag moom su fekkente ne en tant que moom gis na loolu rawatina nag ñun ñi nga xam ne mooy ñëbatu sëriñ tubaa bii loolu amee ñu ne ko kat bëgg nañ loolu mu firndeeku ci kanamu sëñ Muntaxa ci jàpp gi mu fas yéenee jàpp ci biir liggéey bi mu ne des na ci yéen ma ñëw ci sëñ maam Thierno Mbacke mi wax ko fekk ko këram ñu waxtaan lu yaatu man loolu moom lu may sawar la ndax lépp luy jëmale liggéey bi kanam rawatina muy liggéey Sëriñ Touba lu ma ca man dinaa ko def ni ma waaw baax na incha allah rabbi dinaa ko wax sëñ bi dinaa la woo moo ma wal boppam ne ma nu ngeen ko bëggee woon ñu ne ko ah moom daal ci yéen la aju rek bis bu mu ko joxee rek noppi na mënu mënuñu samedi 13h yàlla dogal ambassadeur bi ñaanaat ñu puus ko ba 17h ko sëñ bi sëñ bi tamit daane ne waa loolu mën naa nekk ba ci biir loolu ci la ñëwee Touba ci kanamu sëñ Muntaxa wax na ak moom sëñ bi jox ko ndigal ci lépp loo xamante ne bi jëm na ci liggéey bi ci lu mu war a ci lu man ca bëgg koo def mu xam ne ñii waa karwaan bi am na ndigal ci liggéey bi te lépp lu mu ko def rek mel na ne moom la ko defal mu am ca mbégte lool sëñ bi ñaanal ko mu delluwaat ndakaaru waaye li ma bëgg a rek mooy sëñ Muntaxa ci ak baaxam ci bëggam sëñ tubaa ci xër ci xam taraanga ga sëñ maam Cerno mi moo ma woo xamal ne ma sëriñ bi kat dafa am ay taraanga yu mu bëgg a jox ambassadeur bi te loolu su ko defee rek defal na ko murid yëpp mu daal ma koy sagale ndax si mu taxaa moom lépp lu jóge ci moom jëm ci barab rek ab sag lay doon ci ki ko yóbbu kon sag boobu ñu sagale ma ko ñu ànd ak sin kalaam mi ca la bokkoon ñen ñi ñi nekkoon euh, Sénégal ñu ànd dem yóbbu ko jox ko ko mu am mbégtam xol bu baax a baax ba sax am na ci benn euh, mbubb moo xam ne dane bii moom su ñëw sol sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul au Gabon Tawfekh Production di si ànd établissement Mbaye et frères Techno Habitat ak Digital Store ngir gunge leen ci bisu tedd yooyee. biñ demee itam di laaj ndigal ànd ak suñu fàllu mi ak ñoom suñu kalaam boobu suñu seex mbeng mi ngi fii waaye umpuntiwul ak ñi fi nekk yëpp ndax mooy jiite liggéey bi fii. biñ demee ba leeral ko ba laaj ndigal ba àggal ñu leeral ko mair bi maire Libreville bi. tudde gëm tuddee Serigne Touba mbedd mi yaakaar naa barki démb demoon nañ fa di ko intégré waaye Serigne Mountakha dafa bind bataaxal sant ko gërëm ko ñaanal ko sëñ Fallou mii jox ma bataaxal bi ma jox ko suñ kalaa ma jox ko suñ seex mbéy mii yaakaar naa moo ko jottali euh, maire bi fii ci turu karawaan bi ñëpp kon loolu mel na ne sëñ Koso daa ñëw di feddi li cantuk si taxa ci mbedd moomu nga xam ne léegi moom la meeru Libreville bu Gabon bi tuddee si Ahmadou Bamba kon moom waxtu wu nekk rek lépp lu jëm siñ tubaa rek dañu gis ab taxawaayam ak yéeneem ak gu bëggam loolu kon ñoo ngi koy ñaanal yàlla suñ boroom mu yàggal ko fi lool te wéral ko fi lool te lim bëgg a liggéey Sëñ mu def ko ci sagoom ba am ci tawfeexu sëñ bi loolu kon mënut woon ñàkk mooy kàddu cant yoo xam ne dañ koy yëkkati waxaale ko mbooleem taal bi yi fi nekk yépp di sant itam bu baax a baax a baax mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew ñépp bañ a tudd bu tuddee sëriñ maam Thierno ak sëriñ xaadim dana mën a yóbbaaleel kilifa yëpp ndax fa sayarallaahu amalakum wa rasuluhu moo ci am solo yàlla gis na lépp te doy na itam sëkk waaye buñ tuddee sëñ bi rek yóbbaaleel na mbooleem kilifa yi yëfe yi yëpp di sant ñëpp seen taxawaay ci turu njaboot gi waaye ci turu mbooleem taalib yi nga xam ne lay ñoo nekk fii ci e, Mayumba gi yëpp di cant bu baax soxna musli yaakaar naa ñu bari xam nañu ko fii moom mu daldi di doomale boppam maanaam mu bàyyee la boppam sëñ Fallou mu am taxawaay bu rëy ci liggéey bii mooy liggéey sëñ Tuubaa bi gis ngeen waxtu bu nekk ku mën di ñëw mooy dem aéroport gàttunu la ànd ak ñoom sëñ Seex ak sëñ Baddo ak sëñ Kalaam ñoom sonn ca lool kon loolu ñi fi ñëw ñëpp ñu xam na kenn la ci njaboot gi njaboot Sëñ Tuubaa gi ngay ñaanal ko yàlla defal ko tawféex itam di ko wax sëñ bi mu gën ko dellu ñaan ndax ku am solo la ci liggéey bi kuy jàppale karwaan bi la ci liggéey bi loolu kon munta woon ñàkk moom it ñu euh, sant ko bu baax a baax liggéey bi nag liggéeyëb Sëriñ Tuubaa la liggéey sëñ tubaa la sëñ tubaa moo ko moom yàlla nag ci ak mbaaxam lenn loo gis rek dana am fu mu koy jaarale ñu sëñ tubaa di taw am luy jaar ci ñoom ba liggéey ba am ci sëñ Fallou mi ko suñu borom jaarale ci am xalaatam ci gis-gisam bu yaatu ñoo ngi koy dolli sàkku ñu dolli ko ñaan ak soxna jaara buso yàlla yërëm leen te xaaree ndax liggéey la bu rëy boo xam ne lam ca bëggoon de dana xam ne sëñ Tuubaa rek moo jara liggéeyal ku ko liggéeyal ku nekk rek bala nga ko xam dëgg nga dem biir bàmmeel liggéey bii mu liggéey am na fu mu jaar loo gis rekk am na lu koy waral moom bi mu jàngee ba noppi war a dem jàngi keer sëñ Mahamadou Fadal Mbacke moom moom moo sëñ Fall ci boppam moom nett lii mu waroon a génn ànd ak ñenn ci waa këram mu jox ko ndigal pour mu toog booba nee na xaw na koo jaaxal ndax gis na ñenn ci ay njabootam dem lu tax moom léegi mu aaye ko waaye ñoom nit yi bàtti nañu xam xam gim xam ne jëmuwaayam ak liggéeyam mooy fii ci Gabon liggéey fi Sëriñ Tuubaa te amaana bu demoon loola lii nii du ko du ko du ko mën tey jii te lii moo ëpp njariñ lépp ñuy dem ba nga xam ne bi mu waree ñëw Gabon tàggu Sëriñ Abdou Ahad Mbacké mu ne ko toogal ne xaar ba nit ñi noppi mu ne ko fàllu de yàlla daf ma xamal ci sa jëmm ji loo xamut mu ne ko mbàkke dëgg la mu ne ko xamale traa ngay àdduna ak àllaaxira yàlla yonent bi sëñ tubaa jox nañ na ko foo mën nekk sëñ tubaa mi ngi sa wet la may wax ni sëñ Seex Mbeng mi yaakaar sëñ nett na ko ay yoon nekku nag dana liggéeyloo foofa waaye nanga nga muñ tabul fayantoo dafa am rek lu ma bëgg wax moo tax may may indi loolu nga xam ne loolu doomi Sëriñ Tuubaa wax na ko ay at yu bari liggéey bi di door agsi ci loxaam waaye li ci gën a yéeme ci ñoom seen wax bu ñu waxee rek faw wax ji day sar te lu yàgg yàgg yàgg yàgg day ñëw man jàpp naa ne liggéey ba weesuwul lii ndax sëñ Fàllu bi mu xalaatee lii ci Mayomba wutal ko ay kayit sécuriser ko laaj ci ndigal Serigne Cheikh Matalay Mbacke yàlla na ko yàlla dolli ay leer ñu àndoon ñu demee sëñ bi leeral ko lépp mu ne ko am nga ci ndigal suñ suñ Fall nekk ko daa bëgg sa alal jiitu ci mu ne ko incha allah rabbi loolu mooy am bi suñ Fall wutalee liggéey bi ay kayit. kayit yooyu moo waral jataay bii mbooloo mi mën a ñëw biir Gabon te duñ am benn jafe-jafe ñëw dugg génn def seeni ziyaar def li ñu bëgg def lépp demaat kon liggéey bi ci am xelam gis na ne àdduna day dox mu kar ko wutal ko loo xam ne du ko mën a yàq dara du ko mën a yàqati ci wàllu ay kayit du ko mën a gàllankooru ci bu ñu bëggee liggéey Sëñ Tuubaa mu ne moom day fondement rek li tax mën a liggéeyu si liggéeyu Sëñ Tuubaa la mooy ONC bi def ci woon benn turu doomam membre yi boo xoolee amul kenn koo xam ne sax maanaam ab taalibe bi nga wal doomam nga amu ci ndax koo gis rek am na foo ko yàlla am na bunt ci Sëriñ Tuubaa waaye ñooñu itam dañoo gis ne seen liggéey ci Sëriñ Tuubaa amuluñ ko buntu mu xool ñu am pasteef Sëñ Tuubaa dong ñor leen ño mu mu leer na koon liggéey bi ñii nii bu tegoo ci seen loxo liggéey bi dana jëm kanam du du laa suuf ñooñu ñoo ci nekk tey kon su fekkoon lay liggéeyu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 ba bàyyi fi lii dem ca at moom daanaka at mi ko tàmbalee rek ma ca ñaare ba ba ca ñetteel ba ca la dem mu bàyyi fi nag ay njaboot ñaari njaboot benn bi mooy ñi mu jural boppam benn bi mooy njabooti pësteef pas-pas ruux te loolu mu ëpp doole lépp ñooñu nga xam ne ñoom la àndoon di liggéey liggéey bi sëñ Seex Mbeng mii toog di seen jëwrin su ma ko tuddee rek mel na ne tudd naa ñépp ak mboolem fu taalibe nekk rek ñoom la ko àndaloon doon liggéey yàlla dem na nag mu wujj suñu boroom ñu fas yéene insha allah rabbi ne ko suñu waajur ànde woon ak ñoom ñoom it ñu fas yéene di ko ànd ak ñoom rek ndax liggéey bi suñu tubaakat kenn wërta toog di ca seetaan dara dangaa war a liggéey ngeen nga am ngërëm sëñ Tuubaa moom nag ñoom nag ñu am kóllëre sëñ bi ñoom ñii dañoo am kóllëre lool am ngor ndax li sëñ bi gisoon ci ñoom ba tax mu tànn leen am naa yaakaar ne liggéey bi ñu ngi koy yóbbu fu kawe ñu mat a lañu ñu mat a sant lañu ñu mat a gërëm lañu suñ seexi mbéng mii doomam dox maa jox na ma doomam man ci kër ga ba mu koy indi daanaka matul sax amul sax léegi cinq ans lay lay tolloo wala six ans bëti ko tudd maan tudd suñu Fall doom loolu doy na sëkk ci ab cër ak ci kóol ne yoon wii ñu teegu di ko dox nekk ci bu ñu ko teggewul fas nañ yéen incha allah rabbi am na yaakaar ne lépp mën naa ñëw ci kanam maa ngi taxaw foofu di jéggalu ci kàddu yi bu dee wax nañ loo xam ne euh, maanaam dëppawut ak ak nañu war a waxee ñu xam ne suñu xeer la ak suñu euh, yéene waaye suñ doon suñu yéene mooy rek wax loo xam ne dana mën a jariñ mbooleem ñi fi toog ñëpp maa ngi jéggulu di santaat bu baax mbooleem ñi fi toog ñëpp amuñ bunt ci ci liggéey Sëñ Tuubaa bi ñëpp ñoo ci bokk jam nañ fas yéene takku ànd am ni nemmiku ni Sëñ Fallou daan def Avec Digital Store, vous allez enfin réaliser vos rêves grâce à la toute nouvelle gamme de smartphones et téléphones Android dernier cri de l'entreprise Crosscall. Vous n'allez pas nous croire, c'est la première fois dans l'histoire de la téléphonie mobile qu'un constructeur de télécom met sur le marché digital des appareils téléphoniques garantis 5 ans. C'est le M5, le X5, le T5 et le S4. Les produits Crosscall sont d'une solidité et d'une garantie que vous puisque prouvé aux normes militaires et doté d'une autonomie largement suffisante avec alarme en cas de danger. Les seuls appareils avec anti-choc. Ils sont étanches dans l'eau, du jamais vu. Les appareils Crosscall vous accompagnent dans toutes vos activités professionnelles, au bureau comme en dehors du bureau, pendant votre sport ou pendant les travaux champêtres, les chantiers ou en mer et partout. Contactez-nous au plus vite dans nos boutiques showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 ou à Soumbédioune sur la Corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien